yàlla moom li mu tere woon ba tey rek mi ngi koy tere li mu digle woon ba tey la digla beneen yonent dootu wàccaat te yonent rek mën a indi diine ju bees sharia bu bees boo xam ne bokkul ak bi woon te yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ne gannaaw diine yi diine ju ci nekk ba muy ñëw fi doomu aadama yi tollu ci seen civilisation ak seen mentalité diine joojee dafa tolloo woon ak ñoom képp ni mbubb mu natt ci borom wala dàll wuñ natt ci borom ba mu yem ak moom bu nit ki màggee ba dàll yu jotatu ko wala mbubb mi jotatu ko ñu indi jeneen diine maanaam meneen mbubb moo xam ne mooy tolloo jëmmam moom lay mën a war a sol ñu dem ba nit ki ak màggam yem fa nga xam ne dootu fi weesu ñu indil ko mbubb ak dàll wu yem ci moom képp yem ci muy lislaam léegi gannaaw moom dootu ëpp wala muy sut mu toll yeneen yeneen yére dootu ñëwati yére yi ñëwoon it ni mu toll woon rek lay toll ne yére mën na ñëwati waaye natt gi fiñ ko ko nattoon rek fi lay war a yem ndax ñetti diine yi nga xam ne moo jógee ci asamaan maanaam li ñuy wax la religion révélée ni ki judaïsme maanaam diine yahood christianisme diine nasaraan ak l'islam bu ci nekk fa mu fekk humanité toll maanaam insaniya dafa tolloog moom képp tolloog ma koy faral di wax rek ma di ko wax tolloog E, ñetti état bi enseignement yi bi nga xamee ne xale baa ngi toll ci euh, ndawam toll ci enfance am tolloog enseignement primaire ba mu fa weesoo xam-xamam wees fa mu dikk ci enseignement secondaire mu tolloog christianisme mu dem ba àgg ci enseignement supérieur am baccalauréat am nekk université mu tolloog l'islam loolu moo tax l'islam gën a mat ci diine yépp ci wet gu nekk l'islam moom dong la mooy diine joo xam ne science daf koy gën a dëgëral ba fa science yem l'islam weesu ko waaye mënu mënu cee wokk lu toll ni bën bënu pësa l'islam ci boppam bi nga xamee ne alquran a ngi wàcc bu fekkonte ne doom aadama ko xalaatoon ci boppam dépassé nañ ko bu yàgg te bu fekkoon fekkonte ne itam ba alxuraan di wàcc dëgg yim ni indil réalité yim ni indil day réalité yu maaseeg jamono jooja képp te du dox ànd ak jamono mukki itam dañuy dem ba dépassé ko bu fekkonte ne vérité scientifique la ñu doon indil dañuy dem ba science gi màgg te yonent dootu ñëwati dañuy dem kon ba passé diine ji dootu suñu jëriñ waaye bala ngay gën a xam yéem ak lislaam nga gën a xóot ci jàng lislaam gën a gis itam jamono ni muy walbatikoo ak li lislaam prévoir lépp nga xam ne kon suñu borom tabarak wa taala ni ma koy faral di misaale bi mu bindee suuf si indi ci aadama ak ay sëtam mu mel ne bato boobu nga xam ne mu ngi deqee fii jëm Indochine suñ boroom dal di xam ñi fiy judd ñëpp ba ba muy àgg ñaata la ñuy toll maladie yi fi xew yëpp prévoir seen seen saafara xew-xew yi fi xew yëpp bu ci nekk ak la koy la koy dindi nit ñi fi juddu ñëpp ak ku ci nekk ak sa mentalité ba nga xam ne lépp lu ñuy aajowoo prévoir na ko def na ko ci bata ba ba muy teer moo loolu mooy lislaam mooy diine yi ñetti diine yi nga xam ne ñoo fi ñëw mu di te diine ji ci nekk bu ñu demee ba weesu ko ja nga xam ne mooy ñëw mooy tolloog diine yi ji nga xam ne mooy diine yi nit ñooñu ba duñ ko mën a wees ba keroog saadi di taxaw mooy nag diine yi lislaam suñu borom prévoir na ci lépp lu ñu ñëw ba ba saa di taxaw te lu yàgg-yàgg doomu aadama mënuñoo dem ba jeexal secret yi mukk mukk dañuy dem faw di def iktishaaf maanaam di découvrir secret yi diine secret yi alxuraan ba ba saa taxaw bu keroogee ba ñu taxañ dénd bi du tee secret yi alxuraan taawili alxuraan nag bu keroog bis penc baa ba ñu taxaw lay feeñ bu boobaa dootu jëriñ dara ndax kenn dootu jëfe ama jëf wéy na bu keroogee li alxuraan wax ne wa maa yaalamu taawilahu illa allaahu alxuraan taawilam yàlla dong ko xam maanaam li ci biir alxuraan njëriñu jullit yëpp a ngi ci mën nañ ko cee génne di ko ci génn ba yi nga xam ne seen yoon nekku ci diggante yàlla ak yonent bi rek la ak ñenn ti gaañu baax ñi ba li nga xam ne diggante yàlla ak yonent bi rek la daañu baax ñi seen yoon nekku ci ba li nga xam ne ci alquran ci ay secret suñ borom ci boppam moo ko jagoo yonent bi sallallahu li muy bari bari xam-xam am na ci fu ndax sallallahu taala alayhi wasallam xam-xamam Seydina Jibril bi nga xam ne malaayika yépp mën nañ ne buñ ci génnee ñett moo ci ëpp xam-xam Seydina Jibril yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën na koo jàngal fukki junni at te du xaajal xam-xami yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent bi sallallahu bi mu nekkee ci fii ci adduna bi li mu feeñaloon ci xeeti xam-xam mooy li nga xam ne moom la doomu aadama yi attan ak li leen di jëriñ rek ndax doomu aadama yi li gën a bari ci xam-xam buñ leen ko wanoon du dana leen leer waaye daf leen di lakk leer gi daf leen di ëpp ba lakk leen ñu tànn ci moom ci ñu tànn ci xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ci diina ji li nga xam ne dana jëriñ jullit ñi te du leen lor ni nga xam ne noonu la si Ahmadul Busiri radiyallahu anhu wax ci bu muy tagg yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama ne lam yamtaxinnaa bima taayal uqulu bihi xirsan alayna falam nartab walam nahimi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xër gi mu xër ci nu mucc nattoowunu indi kaawteef yoo xam ne dana tax nu di ko teg place yàlla mi nga xamee ne nasaraan yi foofa la ñu teg Isa bi nga xamee ne daf daan fab ban tabax ko ba mel ne picc ëf ko mu naaw daan fekk ku juddu te amul bët mu raay ko mu am bët daan wax nit ñi la ñu denc ci seeni kër di def ay kaawteef yoo xam ne ëpp na xeli nit ñi ba ñu tuddee ko doomi yàlla mu dikkee it ci àdduna dikkiin woo xam ne nit ñi daawuñ ko dikkee ci àdduna nga xam ne dafa mel ne que mocce malaaka la mocce doomu aadama ba tax ñu def yàlla ñett def ko moom ci boppam mu bokk ci yàlla ji yàlla di kenn di ñett itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ay dafa tànn ci kaawteef yi loo xam ne suñu xel attan na ko waaye nattoo wunu loo xam ne bu ko indi woon nu teg ko place yàlla waaye it mottul mottul ci kawtef yow mu indi ba muy am sikki sàkka loolu moo tax ahmadul buusi wi ne ni nga xam ne noonu la ay xar baaxam toll ak maggam ci yàlla bu ko ay kiyoo kawtéefam tolloon buntu dee turam rek yax ya ràppoon ca bàmmeele ñëpp daañu dekki dund ngir barkeem waaye loolu lépp ndëbb ne ko ngir bañ noo teg loo xam ne lii dana ëpp suñu xel mooy bu fekk law naa sabat qadrahu ayatuhu izaman ahyasmuhu xiina yuddaa daarisa riba mi lam yamtahin naa bi ma taayal uqulu bihi xirsan aleyna falam nartab walam nahima